féminisme am na ko def mu nekk féminisme islamique kon loolu moom mooy tax jigéen war a mën a si ni ñu ko déggee mu nekk man mannequin wu diine parce que ku ne am nga sa mannequin mais jigéen bi nga xam ne moom la yàlla dénk entreprise am moom moo war a nekk mannequin wu diine ni mu koy nekkee nag mooy il faut mu dem si lu ñuy tuddee marché boo xam ne marché jikko la su demee marché jikko dina fa fekk centre commercial bu ñuy tuddee imaan fekk fa magasin bu ñuy tuddee charia mu fekk fa vendeur bu koy jaay bu tudd xaqiiqa ndax bu ñëwul jigéen dafa du dugg sa équilibre waaye bu paree il faut mu jaay ko tissu bu ñuy tuddee nite ndax boo nitewul rek doo mat yàlla jaam waaye tissu boobu dina ko jox tayooru baatin bu ñuy wax kilifa nga xam ne dafay nekk un guide spirituel hors su boobaam moom moo koy defal robe miss boo xam ne robe de personnalité bu ñu def ci haute couture la parce que sur mesure lay nekk neen dina ko jëlal poitrine nu sellal dina ko jëlal épaule ragal yàlla dina ko jëlal manche wu dëggu dina ko jëlal bassin wu nangu dina ko jógal longooru muñ dawal tissu bi nag si daamine ngëm te puso bi ñu koy dawalee nee na mooy puso dal nee na yëre boobu nag yëre tasawuf lay ne du lamb du late te kenn du ko wanteer nee na vente aux enchères lay nekk parce que fi ñu koy def mooy si vitrine nu pénc mu ne yére boobu robbu miis lay nekk bu ñuy défilé ci ci ci défilé borom cër ci keppaaru nitu yàlla mu ne nag ñeent mooy tax jigéenu jullit gañ a casting bi mooy il faut ñu làmb ko ci diine ñu xam ne kii mat na yàlla jaam kon il faut qu'elle soit spirituellement forte mu ne il faut ñu làmb xalaatam ba xam ne intelligence am incliné wu la sur le sacré ba lépp luñ ko jox ñu xam ne xam-xamu yàlla bu am tawfiix la kon il faut qu'elle soit intellectuellement bien formée mu ne waaye il faut mu ràngoo un cœur de valeur boo xam ne caq yi per yëpp ay jikko la su dee mandu mu jël bu dee dëggu mu jël bu dee sellal mu jël ba yëpp mat mu nekk une personne moralement valable waaye nee na is aussi bu ñu ko fekkee ci société bi na nekk jigéen boo xam ne concept du ko dab parce que bu ñuy wàññi nit ñi dinañ ko fa bàyyi mais su ñu wàññi poids yi moom la ñuy njëkk jël mu ne bi ci des pour nga mën a nekk ci dauphine yi nga xam ne ñooy défilé ci keppaaru yàlla nee na il faut nga xam ne le charme est trompeur la beauté est passagère ne na seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge kon nag il faut que nous soyons des femmes vertueuses des femmes de valeur